mbind mu sell mi nee na ci jëf ya saar juróom ñaar aaya juróom fukk ñeent ba aaya juróom benn fukk bi ñu déggee loolu nag seen xol yi di dagg ñuy yeyu jëm ci kawam waaye Étienne mi fees ak xel mu sell mi ne jàkk ci asamaan gis ndamu yàlla te gis yeesu mi taxaw ci ndajooru yàlla mu ne seet leen maa ngi gis asamaan yi ubbiku te doomu nit kaa ngi taxaw ci ndeyjooru yàlla bi ñu déggee loolu ñu daldi xaacu ci kaw tey dar seeni nopp ñu ànd ne milip ci kawam ñu warfate ko génne ko dëkk ba dóor ko ay doj ba mu dee seede ya tegoon nañu seeni yére ci tànki waxambaane wu tudd sol noonu ñu door Étienne ay doj muy ñaan yàlla ne boroom bi yéesu nangul sama ruu bi mu ko waxee mu sukk wax ak baat bu kawe boroom bi bu bindal bàkkaar bi ba noppi mu nelaw